والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إخواني في الله نحييكم تحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dama nuyoo nuyoo bi ma nuyoo sunna la waaye seenu fay nuyoo ci man farata la te bëgguma toor boobu di dal ci yéen farata daa foor ci diggante jullit bi ak boromam kon maa ngi leen di nuyu baat bi ma yàlla sant ci yéen muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Baay Cheikh Ahmed Tidiane na yàlla yokk ay leeram Baye Cheikh daf dan wax nan doyna ci suñu jotay bi batam bobu nga xamanteni mom la dan ubbe ay kaddom nga xam da dan ñew rek jël micro daan assalamu alaykum bu ñepp bokkee fay Baye Cheikh Baye Cheikh ni nañu ñaan bu ñaané sax doy lolu moy li wër kon bat bobu ma ngi ñaan buñ ko sàggane nañ ci xel bu baax ñu ngi nuyu l'islam bi yépp nuyo bi ñi ngi koy jiital ci suñu sëriñ khalifa bay sëriñ asan sek di ko ñaanal yàlla yàlla sama borom yàggal ko fi tam may ko wér ginaaw bi ñu jullee ci yonti yàlla Muhammad tëbb ci faydu suñu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu tajal arifin mumid di kulli awliya ar-rahman yeesal suñu talibé ak suñu cofeel ak suñu fandaañu ak suñu sax ci fat ci faydu sayda saydil mujahid Mahamadou Ndak Seck yal nañ ko yàlla dollee fayal ñuy nuyu sëriñ Xasan mi nga xamante ni ak tijaani yu mi ñu fàggul yiw wii tey ñu toog fii waxuma dara waaye xadara bii nga xamante ni tey def nañ ko fi kese Xasan fagul ni ko doy na yiw doy na ñaan sa dañu wax ni yakfika fi fadlihi hudur nabil mustafa sallallahu alayhi rabbuna wa sharafa kon yonentou bi ku am ak mom audience kala ko ko kooku amoo ak fayal kon Hasan at-tijani yi ngi lay jajeufal ci lool di nuyu suñu imam suñu xarit suñu soppe waye soppe l'islam bi yep moy imam Ibrahim Sar Atijani, diko di ko jox cëram ci bis bi di ko ñaanal yalla suñ borom bi mu fecc làmmiñam ba lim am yene jox ko julli ñi koy deglu ñu man ko jariño ñi fi jitu ñepp ci kaddu wax doylo nañu ko te ñi ngi leen di jajeufal ca yoyé kàddu xana di nuyu kilifa yi asan yi nga xamanteni ñofi tok nuyo bobu ñu tek ko jël ko tek ko ci loxoy Euh, euh, sëñ amadu mu yóbbaale mboolem ku bokk ci biir cekkeen waaye ñu beral nuyoo suñu mag Mouhamed Ñing mi ngi ni toog baykaat ngi bokk ci ñi niy ñaanal ñu jox ko nuyoo boobu ndax suñu diggante imaam daf ñu wax léegi li sëriñ Xassaan waxtaaneek moom ngir ñu jox ko jullit ñi te du doy mooy yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam axlaaquhu axlaaquhu loolu lu yaatu la biñ ko laajee dani lan biñ ne lan mooy jikkoy yonti yàlla muhammad dañ ni jikkoy yonti yàlla muhammad mooy alquraanul karim kon jàpp naa ne imaam alquraan lay waxtaane ndax jikkoy yonti yàlla muhammad mooy alquranul karim te alquranul karim ma farat naa fi kitabin min shay'in yàlla bàyyiwul dara boo déggee ñu ni kaamil lu mat la te jikko yuntiyal Muhammad mat gaa tax yàlla ni ko wa innaka la ala xuluqin màgg ba yàlla préciser ni jikko ju tedd ju màgg yàlla waxal ko boppam loola mat ga moo tax moo tax ñu ni kaana xuluquhu jikkoo moom yontu yàlla Muhammad moo doonoon alquranul karim loolu nag moom la imaam bëgg waxtaanee baru in mahib daal dafa wax ni faqad saasa insul xalqi ji ah, faqad saasa insal xalqi jinnan turan wa jinnahu aaj nazaran fil xalqi taalam bi annahu ni ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsau ka ahmada lam yunsha waaye wala huwa yunsau Muhammad ku melni mom yalla musuko musu sos te ba ila yawmi dini dotul amati lolou nak jikko jaa tax kon ben la won ala kul hal te dotul ñaar koku nak ñun ñep ñu bok bayyi xel imam Ibrahim sar ta ñu ni tek deglu ko may ñaan soxna yi di ñaan ndaw ñi ñun ñep ñu tekkerlu yeesal suñu degg fas yéene déglu lan mooy jikko yonti yàlla Muhammad nga xam ni dootul am ci kaw suuf salaamaaleykum ma wax ni Imam Ibrahim Sarr mii jaratul di wax kii mooy woy juróom kii mooy woy juróom jaratu ko parce que li Baye Tall si daan wax rek cana nitu cana bala waaye doomu cana bala waaye cana ba it la amee lépp mi ngi ànd ak suñu doomu bàyyi di suñu xarit sëriñ Idi Cissé waaye Baye Talla Seck nekk tamit suñu sëriñ ku ne xam na ni seen cër ci bis bi lu rëy la waaye bañ tënk imaam bu imaam waxtaane ba pare ñu jàllale waale seen yóbbante yi waaye Ibra imaam ànd naag mbokk yi ñi nga xamante ni ñoo koy jàppale ci daara ji ñu gunge si jotaay bi muy euh, oustaz Idrissa Eh, baik Idi Cissé ak Serigne sek ñoo ñoo and ak imam ko defee ñun ñëpp ñu. waaw Baye xali mu ni hommage bu kenn dem na ñëpp tok ndax dafa am yu yuñ leen préparé lon pour ñu mën leen ko jox ñi ngi ndokkeel Baye Dame ci bis bi macha allah jeuf ko defé kon ñu déglu imam ibrahim sa bismillahi rahim.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 mu mel ni su ñu yemale woon foofu nuyoo yi kenn duñu ci yedd ndax sëriñ Souleymane tabaarakallaahu li war ci nuyoo yépp ak kilifa yi nuyu na leen waaye jataay bi tam dafay bëgg a yàgg kon dañuy jublu directement rek incha allahu taala li nga xam ni moo des ci lima yaakaar ci programme bi muy waxtaan wi di ndokkeel sëriñ Xasan ci taxawaay bii nga xamanteni ni amna ko muy jëmmal lu melni hadratul jumaa Cheikh Souleymane wax ko suñu serigne cheikh Ahmed Tidiane dafa dan wax ni law alimtum aw law ariftum ma fil wazifa la atawha walaw khabwan dan na wax ni bo len xamone li ci wazifa te wazifa def nañ ko fi def hadratul jumaa muni di ngeen dik ci wazifa wi donte da ngeen di ram kon alxasan jazakallahu anna xayran nit bu la fàkkalee aw yoon ni la yoonu yiw la da ngaa war ngir wuyu wax dëgg yàlla moo ñu wuyu kon alxasan yàlla na yàlla fay la taxawaay bi nga am ci diine ji am ko ci tariqa bi muy bëgg yàlla yàlla dolli la cee saxal ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ni Cheikh Souleymane waxe Euh, waxtaan wi ñu tànnoon insha allahu ngir bëgg koo fàttalante ak yéen moo di jikko yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na ku ràññiku lool ci jikko yu tedd waaye jëflanteem ak nit ñi nekkoon na lu ràññiku lool moom yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëflante ci biir njabootam nekkoon na lu ràññiku lool waaye ñi ko waroon muy ay saxaabaam jëflante bu rafet tabaarakallaahu fesoon na ci diggante ak ñoom moo tax yàlla suñu boroom tànn yonent yàlla muhammad yónni ko ci ñun ndax nit boo ko waree yónni dafa mel ni ndaw rek sa njaboot di nga xool ka ca gën a farlu ka ca gën a yiw ka ca gën a ëpp responsabilité moom ngay yebal noonu la yàlla defal def ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo delloo ci alquranul karim wala boog moom ci jëmi boppam lim njëkk a wax mooy laqad bu'istu li utammima makaarimal axlaaq mu ni yàlla dafa maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi loolu moo tax boroom xam-xam yi wax ni yonent yàlla Muhammad bi muy ñëw kaw suuf fekk na fi ay jikko waaye dafa ñëw ngir mottali jikko yu rafet yooyu yal nañu yàlla fayal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa am buur bu ñu wax an-Najaashi najaasi buur la woon bu amoon doole lool ki nga xam ni mooy jaafaru saadiq nekkoon baay tëx aliyun ibnu abi taalib aliyun ibnu abi taalib moom la yonent yàlla muhammad salaa sallam mayoon fatimatu zahra kon jaafar ak aliyun ñoo bokk benn baay jaafar moomu ginnaaw bi mu duggee ci diine lislaam dafa am bis mu seeti Najasi, muy malik di bour najaasi di waxtan ak mom niko lan motax yeen ngeen top yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam. dafa melni rek ku nek talib ma ahmadou ndak sek ñun lan motax doni nga top ma ahmadou ndak sek doni dafa rafetoon doni dafa taru won doni dafa amone alal li ngay wax rek moy mujahid la Jambar la won ci diine tasna daram yeewi ay soxnaam ngor laa xam ci moom diine laa xam ci moom noonu la najashi yi def ak ali ibn jaafaru saadiq jaafar ni ko kunna qawman ahla jahiliya ñun de dañoo nekkoon aw nit woo xam ni dañoo réer maanaam xamuñu woon dañoo réeroon yamuñu ca naabudul asnaama daan jaamu ay xërëm dan jaamu ay xërëm yamuñu ca wa naakulul maytata daan lekk medd ci seen réer gi àggoon nañ ci buñ leen musiwalee ginaar walla bëy walla xar ñu bàyyi ko fa dem ci médd di ko lekk falañ lañ tolloon ñoom yamuñu ca wa naatil fawaaxisa lépp lu ñaaw loo xam ni bu ko nopp déggee rek sib ko ci la nekkoon daan ko def ca wa naqtaul arxaama daan dog mbokk mbokk ni mu neexee ak li ci yàlla wax ñun fonkuñu woon suñuy mbokk yamuñu ca wa nusiul jiwaar dan daan lor dëkkandoo ku ne xam na li ci dëkkandoo entre parenthèse maa ngi ci bàyyiloowaat xel ñépp ku nekk ka nga dëkkal ci koñ ba jàppal ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na kër ga nga dëkk boo xoolee ci sa ndeyjoor wàññi ñeent fukki bunti kër def ko noonu sa càmmoñ def ko noonu ci sa bët eh, bët eh, gànnaar def ko noonu ci sa bët saalum jàppal ni ñoom ñëpp say dëkkandoo la kon da ngay xool cana ba tey jii man nga ni fii ba Touba gay ndax boo ci doon wàññi ay ay boroomi kër wala boog ay kër dina nga di nga àgg wax dëgg yàlla Touba ci ñeent fukki bunti kër nga def ko càmmoñ def ko ndijoor def ko penk def ko saw jàppal ni ñëpp say say dëkkandoo lañ la nga war a seddante ak ñoom. mooy nga respecté leen bañ leen a lor ci dara loolu bëgg naa ñun ñëpp mu nekk ab bind ci ñun ñu yóbbaale ko bàyyi ko xel waaye lor sa dëkkandoo ah ëllëg yomal xiyaam ku koy def de eh, bu la yàlla yërëmul rek muske la mën naa am yàlla na ci yàlla musal waaye nee na ci la nekkoon nekk tam yàqulul qawiyu minna daif ku man ci ñun sa moroom duma da gis sëñ Souleymane am doole lol gis Ibrahima sar mu yoy mi am alal as aslef suleyman Souleymane daje ak mom sama doomu nijaay la motax tax daje ak moom defanteeg moom la mu war a defanteeg moom jël lam dem ñom ca lañ nekkon mu fa kunna ala zalika ñu nekk ci lolou jafar moy wax hatta ba'atha allah ilayna rasulana ba yàlla yoon ñu ab yonent mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muni bi ñu yàlla yónnee yonente yàlla muhammad na'rifu nasabahu ñu xam askanam ndax ku ne xam na ne yàlla muhammad askanam rerul muhammad ibnu abdallah ibnu abdul muttalib ibn hashim ibn abd abdi manaaf nga koy topp ba ca kilaab kon leer yaayam aminatu bintu wahbin bin ci nga koy toppe ba mën a tudd fukki maamam ci côté yaayam fukki maamam ci côté baayam kon kooku xam nañ askanam waaye wa sidqahu ñu xam ak deggum yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musul wax lu ak ak ay nar sallallahu alayhi wasallam wa amaanatahu ñu xam ak kóoluteem wa afaafahu ñu xam ak fegoom fa daana ilallahi mu woñu ci yàlla jaafar mooy wax de mu wooñu ci yàlla ngir lan nu wahidahu ngir ñu man ko wetal wa naabudahu ñu jaamu ko way nak wa nakhla ma kunna na'budu ndax ni wa abauna min alxijaarati wal awthaani mu fexe ba génn ci ñun jaamu gi daan jaamu ay xërëm ñun ak suñu bàyyi ci ay xeer ak ay tabaarakallaahu ay ay ay xërëm mu wax nag moom jaafar ba tey nii wa amarana moom yonent yàlla Muhammad digal ñu bi sidqil xadiis yi ba lu ñuy waxati rek muy dëgg kon kii defar na aw nitam yamuca wa adaa il amaana ñuy fexe bay mottali kóllëre képp ku ñu wóolu du ñu tas yaakaaram wasilatu rahimi mu fexe ba ñuy jokk mbokk waaye nag wa xusnil jiwaar fexe ba ñuy rafetal ci dëkkandoo wal kafi anil maxaarim fexe ba ñu bàyyi lu xaram yi jaafar nag wax najaas yi ni ko ndax kon jar nañu topp ko wala jaruñu topp ko loolu kun ko laajoon ci ñun looy wax looy wax jar nañu top yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yonent yàlla muhammad niko sen tere bobu seigne cheikh ndaw me man lol ak seigne muhammad ibn al muhayyib dafa wax ni bada wa biqa'ul ard zulmun wa zulmatun fa ashraqat al arja wa anqasha al karb mu nit yonent yàlla muhammad bada ñewna feñna bim ñewé wa biqa'ul ard fek fekk kaw suuf ñaara fa nek zulmun lëndëm wa zulmatun ak toñ zulmun tooñ wa zulmatun ak lëndëm bi mu ñëwee nag fa ashraqatil arjaau mu daal di taal yaakaar ku yaakaaroon jàmm sa xol daal di ci jàmm waaye nag wan qasha al karbu képp ku amoon njàqare sa njàqare dañ yàlla nañu yàlla fayal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoom moom yonent yàlla muhammad xam naa temps bi bëriwul la ñuy tënk waxtaan wi rek ci jikkoom moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa musa ànd ak ay saxaabaam di tukki ñeenti saxaaba ak moom muy juróom ñeenti saxaaba ak moom muy juróom ndeysaan ñu yóbbaale ab gàtt war koo defar ci yoon bi war koo defar ci yoon bi kenn ca ñoom wax ni man de gàtt bi jël naa pasteef ni maa koy rey maa koy rey keneen ka wax ni gàtt bi jël naa Pastef ni maa koy fees keneen ki jël Pastef ni gàtt bi maa koy togg mu des yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni gàtt bi ginnaaw ba ngeen waxee yooyu yëpp man war na ma ma dem dajale ji matt bi indi matt muy matt muñ ko togge subhanallah kooku mooy yonente yàlla muhammad bi mu defee loolu saxaaba yi dañ ko déedéet yaa rasulallah ñun war nañu lu warlu nañu lépp ñoo koy def ci gàtt bi mu ni déedéet xam naa ni même su ma ko waxee dingeen ma yebbal waaye yàlla suñu boroom dafa sib ci ab jaamam muy feeñ feeñ lu ci kanam yi moroomam allahu akbar ay waay misaal leen loolu ci jamono ji kan ngeen gis ci kilifa ànd kii taalibe ci ni ma ko mën a waxe ci situation bu mel nii nga mën a futteeku ànd ak ñoom ci liggéey amut wax ji wax ji nag kuy roy yonente yàlla Muhammad nga war a roy nañ di tiire waat ay leçon ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sosoom sosoom sax kenn xamu ko dañ koy wax rek waaye ba këroog muy sàngoo suuf musul deñ di feeñal jikko yu tedd waaye nag di sori mbooleem jikko boo xamante ni nii bu ñu euh, rafetluwul la mën nañoo jël misaal ci dëggoo moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën nañoo jël misaal ci ak fegoom moom yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën nañoo jël misaal ci am xelam mu rafet ndax itam yonte yàlla muhammad moo ëpp xel ñëpp xel mu rafet moo ko ëpp ñëpp yar bu tedd moo ko ëpp ñëpp li ñuy wax puissance doole ak njàmbaar moo ko ëpp ñëpp waaye doy na rek suñu borom subhanahu wa taala كان كو تي القران نيكو وا انك لعلى خلق عظيم وا انك دا فا جاكار لو موم تتوايي كو ضمير المخاطبه خم نين كو موي جاكار لو نيت كي نيكو ياو وا انك ياو رسول الله لعلى يانتي كو خلق عظيم جيكو رافت مونون نكو ني امغا جيكو رافت مي وخو لولو يانتي كو جيكو رافت كون يونت يالله محمد موي جيموي جيكو رافت صلى الله عليه وسلم موتاخ بو ديمي سين تيري با دينا واخني اليس الذي خاز المفاخر والعلا اليس الذي بروم تيري دا فا لاج اليس الذي خنا نيكول موم رسول الله كيغا خامني خاز لقنا المفاخر مبولم بوكريو والعلا اكاوي واي نك بما نص بيغا خامني يا يا يا خال نكو من آي الكتاب تي آي القرآن و و فما تلا أجيمي إمي جانج تي القرآن لب لو خمني يالا كن نكو ينتي يالا محمد تيجي كوي رفت نن جابوني القرآن مو كن جك كن نح موني كوا إنك لا على خلق نازم بما نست من آي الكتاب وما تلا بولم تربي وقني وأنا يدانا في المكان الذي تلا نكا نيون لني جيجي تي بلاس بيغا خمني ينتي يالا محمد كوي نكو manam ker ini ngi kuisin yang koy seen yaa ngi war a yëg ca ga mais ker ga sax mëno ci ag lolu moy jikko yonte yalla muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. roy rek lañ mëna def ci mom motax muni atamul wara jahan wa abharuhum xola moy ki nga xamni mo gëna mat ci minde fi ci tap waye mo leen gëna bir ci melo lahul madhu yujla wash shafaatu tukhba'u yonte muhammad ñel nako tagg woo xamante ni nii wu kawe la waaye nag ramm goo xamante ni da ko yàlla da koo dencal ba ëllëg xam ngeen ne yonent yëpp nag ku ci nekk am na tagg wala boog am na ramm gu la yàlla may wala ñaan gu nangu gu la yàlla may ñëpp nag yonent yëpp seen ñaan yi leen yàlla may ca seen jamono la la yem ba mu des yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax téere bi di wax ni li kulli nabiyin daawatun mustajabatun wa ahmadu yabdu fi shafaatihi l fadlu maanaam bépp yonent booy manti gis ñaan gi mu ñaan yàlla may na ko mu yem ca xeetam ba mu des yonent yàlla Muhammad ba ko laa yàlla laajee dañu ko dencal ma ko ba ëllëg ma jox ko sama xeet yàlla na yàlla dugal ñu àjjana ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey yàlla suñu borom ci alquran présenté nañu yonente yàlla muhammad présentation bu rëy bu tedd waaye bu daw yaram ndax dañu laqad jaakum rasulun min anfusikum laqad yàllaa ñu présenté yonente yàlla muhammad ci présentation bu daw yaram mu ni laqad ca dëgg-dëgg akum andil naa leen dikke naa leen rasulun ndaw ndaw loo xam ne min anfusikum maa ngi ko jëlee ci seen bopp yonent bi nit la nit la du jinne ndax bu nekkoon jinne rek sëñ Mouhamed bu mee du ko du ko du ko way jinne foo koy jaar ah du malaayika yonent yàlla Mouhamed nit la moo tax jamonoom saxaaba yi wala boog yéefar yi dañ daan yéemu ci yonent yàlla Mouhamed ndax dafa oyofoon tellement ba bu xëyee da jël euh, siwa marsem di dem ci marché ba di jëndi subhanallah ay kan moo koy def ci jamono ji kan moo koy def ci jamono ji sax yefeur yi yéemu ba naan maali haza rasul yakulu taama wa yamshi fil aswaq wa yonent bo xamni da fay dem marché di lek ah yonent bu lekkul nu muy def nit la te nit da fay lek hmm motax yàlla ni laqad jaakum ci deug deug andil na len rasulun ndaw min anfusikum mu jële ko ci sen bop yonent bo xamni yàlla da ko jox ay critère yu rafet azizun alayhi ma anittum ku tedd la ci yéen ci lo len beug lépp luy sen ité rek soxlal nako subhanallah lépp lu jam ñi beug rek yonent yàlla Muhammad itteem la su ko amul xelam du dal azizun alayhi ma anittum waaye xarisun alaykum ku xir la ci yéen ku am tiofel ci yéen ku am mbeugel ci yéen la mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye nak bil muminina raufun rahimun yonent bi yàlla daf ko jox ñaari critère muy dafa am tiofel ci julit ñi waye am yërmande ci julit ñi motax bo delo ci alquran yàlla bami waxat raufur rahim jële ko ci bopam jëme ko ci bopam inna allaha bin nasi la raufun rahimun nga xamni ñaari maqama yi bokul yàlla budé yeureum ak di ñewante ci nit ñëpp la ko yemale la moo xam nit la wala boog moo xam jullit la moo xam yéefar la waaye ku moom nag cofeel gi ngay am ci ab jullit la war a déparé ci moom la war a teere amoo droit ni yéefar bii sama xol laa ko dugal déedéet ñu bëriñ ki def erreur ñu bëriñ ci def erreur nañ ci bàyyi xel ab jullit ab jullit la war a bëgg di nga nak am husnul jiwar ndax sa dekkando budé julit la budé dee la la nga mëna sékk ak mom moy nga rafetal sa dekkando waye sama xol la ko duggal subhanallah yaa ayuha alladina amanu laa tattaxisu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bil mawadda yàllaa ko wax mu ne yéen ñi gëm bu leen jàpp samam noon ak seenub noon soppe ngeen di jël ay cadeau yu rafet di len ko euh, jox nan sama sama xarit lak sama soppe lak sama nangam dedet Abdulit mo wara melonu mel nonu ci digganteem mak abdulit kon yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam nonu la melon ci jikko ki ñi wax Anas ibnu Malik Anas ibnu Malik moy ki nga xamni yent yalla Muhammad moko yar ci مكوي ليغيال نينا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين مني ليغيال نا يونت يالا محمد فكيات تكرم تي كرم لول توتي ول دي لول توتي ول دي انس فما قال لي اوف قط يونت الله محمد مسما تي باتو فوكي ات نينا تي باتو وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته مسما ديف مير تا وروما كو وانا ديف موني ما لوتاخ nga def Allahu akbar wala li shay'in taraktuhu lima taraktuhu musuma bàyyi mbir bo xamanteni waron nako def bayiko munima lu tax defoko kon luñ ci jangat ñi nga xamne am nañ ay khadim ci kër khadim moy kulay lay mo xam boy la mo xam ni ngeen koy waxe jank bu lay liggéeyal nga koy traité maltraitance ci bir kër gi royo yonante yalla Muhammad te kep ku royo yonante yalla Muhammad sa ëllëg bu la yàlla yërëmul rek du baax nañ bàyyantewaat xel xam na ñi ñuy liggéeyal ci kër yi suñuy nawle lañ waaw suñuy nawle lañ kon anas loolu la seedal yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikko yonente yàlla muhammad bu temps bi jeex rek waxal jikko yàlla muhammad yemul rek ci njabootam yemul rekk ci ay saxaabaam yamul rek ci bopam waye dako matale ci fépp motax dan daan na ay soxnam ci biir kër ba nga japp ni yonte yalla Muhammad dafa ñak fayda ngeen bal ma ci kaddu gi yonte yalla Muhammad ko am fulla ci bopam la wa buy dox du gestu ginaawam nako waje waxon ci seigne babakar du du dox di gestu ginaawam bëtam du xol lu fa mu jëm ci yonent bi yalla Muhammad lañ ko royee ñom ñep yonent bi dawul gestu waye amon na xëy bu tolni du jitu kenn fami jëm nga koy nga koy nga koy yaa Muhammad dedet diko jor kenn du ko def ci mom ndax yalla defon lolu ci mom yonente yàlla Muhammad waxna ni xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen moy ki gën ci njabotam te ma len gën ci sama njabot ndaysan bis doon na fow suñu yaay Aïcha gis nga soxna dangay foo ak moom jigéen ñi billaay <laughs> doy na war góor ñi dañuy ñàngal rek ah na ataaya ji ñëw na soow mi ñëw tàngalal ma ndox yonte yàlla Muhammad dafa doon fo ak Aïcha ci biir kër gi bis jot ñuy rawante ndeysaan yonent bi dafa muus ta xam ni muy fooye dafa bàyyi Aïsa raw ko dafa bàyyi Aïsa raw ko kon Aïsa am na benn yonent bi amagul dara ñu rawante waat ñu départ rek yonent bi àgg fa jëm mu ni ko haasihi bi tilka waaw haasihi bi tilka <laughs> xam naa ne ku moo ko bëggoo def loo ba ma balaa may takk caaya ja bay pare julli jot Ya, bala may tak tay ja bay pare julli jot waaw dadi bay soxna yi dañuy waxtaan ak ñom wa nañuy fo ak ñom parce que ki bayyi kërëm bayyi leppam da yonent yàlla Muhammad da leen daan fooway ndeysaan waaw may seen lepp yent yalla Muhammad bis euh, Fatima Firna, ci digëntem ak Aisha, waye dafa ñew wo Fatima Niko ki, seen lepp la wax waxin wu tedd raay bopp Fatima Fatima jug dem yoonam nga xam ni da daan kaf ak ay soxnaam di miinal boppam ay soxnaam yàlla na yàlla dimbali ban mën a roy yonent yàlla Muhammad ci ay jikkoom. ñaata yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ci ak waccam dan jëflanté ak sahaba yi jëflanté bu rafet nee nañu yonte yalla Muhammad bu musaana tok ci jotaay dawul tok ci kaw nak jotaay ci suuf rek bari na mag ñu bari ñu ko roy ci lolu ndeysaan parce que nit ki boko bëggé bëggee do ko mëna jaay daraja ja dedet dang koy sonal waccel ba and ak mom ba tollok mom man ko jariñ mu mëna copier ay jikko dan ni nitu yalla du wax nga nga bax nitu yalla du wax nga bax dang ko nan rek defaru waye ko xamni ni bax nga wax wala bala euh, mbir yi di bax rek faaw mu wax dedet nitu yalla faaw ay jikko mu koy rangu bopam di lu waye di jima and ak ñinga xamni japp na ni man na leena defar yonte yalla Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ci ay jikko mu tedd neenañu bu bu na tok ci jotaay ak sahaba yi ku nek ca jotaay ba dalay jox itte ba nga japp ni man kasse la yonent yalla Muhammad bëgg xoola jikko joju waye ku ñew nga fat ñi am xaaliss nga fat ñamul xaaliss nga tok xaar nañ bayyi jikko yoyu nañ royat yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas dani Anas mom la netali legi Anas nena, dama amon ben mbok bu tuddu umair dafa amoon benn picc ca kër ga wala benn pitax ca kër ga yonte yàlla Muhammad da daan dajeek Umayr sama rakk ji nan ko yaa Umayr ndaka sa picc ma ndaka sa pitax ma xoola tawaado wàcce boppam hmm? waaye neb nebi rek neexul mais damaa bëgg ñuy roy ci yonent bi wallaahi azim laa wax damaa bëgg ñuy roy ci yonent bi ci ay jikkoom ndax buñ ko royee rek jafe-jafe yi àdduna yëpp ñàkk roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaw batay ci jikom mom yonent yàlla Muhammad ku mënoon muñ la ndax ku ne xamna histoire ak wa Taif Taif metti won na ci yonent yàlla Muhammad ay situation yu metti ndax jamono jo xamanteni ne amal xusni lañ koy wax muy yi njàqare ja ci yonent yàlla Muhammad ndax ki nekkon te sësoon ci mom muy hadijatu ci la fatu won jigen ju bax di sa awo génn àdduna ku ne xam na ni metti na ndax aawa mooy samp kër su génnee àdduna day metti ci yow rawatina ku mel ni xadijatu fa mu féete yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay bàyyi taxam faatu mu ni cundum mu ni cundum ñu waroon koo jël taxawu ko jàppale ko mu dem Taif waa Taif di ko booleeg ay xale ñu koy sànni xeer allahu akbar mu metti lool moo tax ci la yàlla réagiré lu am solo li ñi wax al isra wal mi'raj jamono joju la xewe bi yàlla xolé situation bi mu xawa metti mu ni faaw ma teral sama jambi ndax ki ku ko bàyyi dina doy waar donte ni kat la nak yàlla invité ko motax subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه foofu laa mu ni subhaanallazi tudd naa sell ki nga xamante ni nii asra yéege na bi abdihi ci jaamam bi laylan ci guddi minal masjidil xaraam mu juge déparé masjidil xaraam ilal masjidil aqsa jëm ca masjidil allazi bi nga xam ni baarak naa barkel nañ xawlahu li ko wër lépp ngir lan li nuriyahu min ayatina teraanga jàngoo yonte yàlla Muhammad bi mu ñëwee ak fa mu jaar fépp yàlla mu ni ko teraanga jaa ngi nii xoolal sama kéemtaan yi allahu akbar li nuriyahu min ayatina kon lañ ko tegoon ca taif jeex na soxnaam sa faatu woon coono ba jeex na ndax yàlla wan na ko loo xamante ni musu koo wan jaam sallallahu alayhi wa sallam waaye jamono jooju dafa metti woon ci moom ñu boole ko waa Taif ñu koy lor ñu koy lor waaye ci ak baaleem malik malaaka bi nga xamante ni moo doon gérer ñaari jabal yi ñaari montagne ñëw ci yonante yàlla Muhammad ni ko jot naa ndigal ca xadara bu kawe ba nee nañ ma jël ñaari montagne yi dajale ko waa Taif yépp dee sëñ as bu doon yow la nooy def diw damaa yëpp ngay wax diw damaa yëpp hmm? na faatu benn yoon dinaa ko duma ci kurus ni ko gaa yi waxe kenn mënta duma kenn moo tax dañ dañ dañ dañ wëkkeerlu ci yàlla laa xawla wala quwata illa billah yàlla rek moo fi nekk koo ragal yàlla la ragal léegi da ngay ragal nit bàyyi yàlla te yàlla moo la bind xam nga li te yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax مني أرجو أن يخرج الله له من بهم من يعبد الله وحده لا شريك به شيئا ديدت داكوروما ناخ ماغي ياكار من رسول الله نيوم ني ماي لور بول لين في بايي بون امي دوم ولا سيت ام كو تي جامو يالا ديكو ويتال ديكو كينال سبحان الله كي مو ام ديكو يتد صلى الله عليه وسلم لا خلا إمام حياة wasallam. macha allah kooko yonente yàlla muhammad jazaahallahu anna afdal jaza jërëjëf sëñ muhammad booy wax si moom doo doyal boo koy tagg doo doyal mais kenn la dag dag macha allah yal na yàlla fay ba tey ci ay jikkoom mooy dëggu yonente yàlla muhammad ku dëggu woon la ci ay waxam ku dëggu woon la ci ay jëfam ku dëggu woon la digganteem ak boroomam waaye ku dëgg woon la ci boppam ndax nit dangay ngay wóolu sa bopp ci dëggu martaba la bu kawe nag waaye ku dëgg woon la ci ay noonam xam ngeen ni bu nee yonente yàlla Muhammad Muhammadul Amin yéefar yi ko tudde yéefar ko tudde kon tabaarakallaahu yàlla ñu ko yàlla dollee fayal gis nga yéefar yi luñ musaana wax yonent bi dëgguwul bokk ci alquran ji mu andi duñ wax ni mukk alquran di wérul luñu wax sahirun saaxirun njibarkat la luñu wax majnunun dof la waye duñ wax mukk yent yàlla muhammad nar kat la dedet kon lool yàlla moko def ci yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax sen téré bi batay tey muhammadul qusasi mi ngi daan bihi xutima silkun nabina bahjatan له القرب من دون الورى وله الحب كوكو yonent بي nga bal ma nak sa bat bi neexul de kon koko yonent bi tabarakallah kon muhammadun il ahda maqalan wa xujjatan mubinul huda lisanikin محجة وأصدق من يمشي على الأرض لهجة به ختم سلك النبيين بهجة له القرب من دون الورى وله الحب والسلام عليكم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 daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu ay ba aljana waa